sëriñ Babacar si moo yóbbu sama xel mi ana tanoor mbuub moom itamit yàlla na jàmmam yàlla kenn du sëriñ Babacar si xale nañ ma dem ba treize heures tey sëñ jar na ko xural ba وجديلا أخلا مولاي المهم déggal dèjà balaago nee na ma abaa borom daaru maa la bëgg bilaay bëgg nga ku baax damaa daanu rey sama turandoo xewle xuural baaw ayra la woojoo dee la ah yaasin yoo yoo gëm a jëm yaasin déggal yoo yooyo yooyo yaas waa <laughs> bàyyi leen ma waay bàyyi leen ma ngir yàlla la ilaha illallah Aliou ba Serigne Babacar si da ngay dagg nii taakàlla euh, Aboubacrine Samb mooy woy Serigne Babacar si nga ne ma temps bi jot na ayca daggal daggal da ngaa bëgg dagg daggal bu ngeen ma déggatul ma wax dañ maa dagg.